al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam waaw kon dañu ne euh, comparé ñooñu ak wayjur yonent bi sallallahu alayhi wa ak la ca nekk euh, ci ñàkke yonent bi teggin ci euh, ay ñaari wayjuram ci lor yonent bi sallallahu alayhi wa ci ay ñaari wayjuram ci ànd loola yépp ñun dañu jàpp ni li irtidaat la murtat la anil islaam ndax xasfu la jam la goo xam ni da ko jubal ci way jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallama e, ci seenug sange ci seenug jàpp ndax comparaison boobu mu def ñaar ñooñu ak ñaar ak ak ñaari way jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam e, ma ne lii ak réer moo ko waral ndax dëgg la e, wuute am na ci ñaari way jur yonent bi ndax dugg nañ ci lislaam wala dugguñu ci lislaam am na xadis yu ñëw yoo xam ni Euh, wone nañu ni euh, yàlla dekkalal na yonent bi ñaari way juróom ñu gëm ko delluwaat ñu gëm ko daal di delluwaat ci seen bàmmeel dëgg la xadis yooya wérut la chaque ni wérut euh, bu ñuy jël nattuwaayu xadis rek amut sikki sàkk xadis yooyu jegewut sax ak wér donte am na boroom xam yu ko nettali lu mel nii ku mel ni suyuut yi bind na ci risaala xaasa waaye ak lu ci mën a xew eh, xadis yooya moom ci nattuwaayu xadis wérut Euh, beneen bi mooy ñaari wayjur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ba xam gannaaw bi ñu bi nga xam ni li wér moom mooy ni dugguñu ci lislaam waaye beneen bi mooy ndax ñoom danañu texe bis penc wala duñu texe loola nag ginnaaw ba lépp delloo ci loxoy sunu boroom subhaanahu wa waaye teewul boroom xam-xam yi euh, am nañu ci ak wuute wuute ba mooy am nañu ne du texe Euh, duñu texe ñoom ñaar euh, loola it waxees na ko waaye e, dalil yoo xam ne dalil qat'i la ñëwu ci euh, am nañu cay taloo ci xadis buy wax ni abu abu abi wa abuka fi naar waaye xadis boobu donte buñ koy natt ci misaanu tasxiix wa tadif ci xadis manees na ni wér na min xaysul isnaad waaye nag dafa def tanaqud ak xadi euh, ak ayab bi sunu borom di wax ni wa ma kunna muadibina xatta nabasa rasula yàlla nee na du ma mbugal kenn du ma mbugal wenn xeet du ma mbugal kenn lu dut ab yonent yónni naa ko ci ñoom wala yonentu ab yonent jote na leen euh, taw ñaari way jur yonent bi laa shakk ni yonentu ab yonent jotewu leen ndax euh, dañu bokk ci asxaabul fatra asxaabul fatra gi nga xam ni diggante isa alayhi salaam ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diggante soosu Isa yónni wuñu ko woon ci ñoom eh, te fekke wuñu eh, yonent bi sallallahu alayhi sallam ak yonentaam kon ñooñu dañuy dugg xat man ci asxaabul fatra asxaabul fatra nag eh, li ci boroom xam-xam yi wax la ca gën a wér mooy bu bis pencaa dëgg la dinañu ñaxtu wala dinañu def lu mel ni ñaxtu bu waa aljanna di dem aljanna waa safara di dem safara ñoom ñu nekk ci ndiggante mu mel ni dañ leen di wax ñu ñu dem safara eh, ñoom danañu ñaxtu ak ña nga xam ne judduwuñu eh, dañu judd ci ñaari wayjur yu dul ay jullit tafaatu ca ba ñuy doon ndaw ak ñi nga xam ne bañ dañu judd ci diggante ñaar ñu doon ñu doonut ay jullit te yàlla la mayu leen xel amuñu xel ñu mel ni ay ay ñu ñàkk ñu ñàkk xel dem ba màggee ci noonu ba faatu seen amuñu xel ñooña it ñooy bokk àtte ak ñi nga xam ni it euh, euh, dañu juddu ci diggante ñaari jur yu dul ay jullit te fekk na ñu boole gumba ak tëx ak lu ba nga xam ni ishaaraat yi nga xam ni ñooy ñëw pour man man leen junj ci ñu xam yonent bi mënuñu caa comprendre dara ñooñu ñëpp boroom xam-xam yi wal mu muhaqiquuna minhum nee nañu bis penc dañ leen di nattu nattu ba mooy dañ leen di jox ndigal ñu dem safara ku gàntal ne yàlla kat ah lu tax may dem safara Euh, defuma lu tax may dem safara kii ne mayoo ma xel kii ne euh, yonent bi ak yonentaam siwul ci man yàlla ne leen dugg leen safara am ñu dugg safara sedd ci ñoom am ñoo xam ne dañuy gàntal ne du ñu dugg lànk yàlla ne leen nag euh, maa ngi nii di leen digal ngeen lànk kon lii ngeen defi ngànt bu fa newul woon it nii ngeen di lànke ñooñu la sunu borom di jàpp dugal leen safara ñële nga xam ni it euh, ñoo nangu tàbbil seen bopp safara euh, safara sedd ca ñoom dañ leen fay génne dugal leen àjjana ngir jëfe ga ñu jëfe ndigal loola euh, boroom xam-xam yi nag wax nañu ni am nañu ak yaqin ne ca ixtibaar booba ca imtixaan booba ñaari woy jur yonent bi incha allah ca la ñuy bokk kon loolu dafay wane ni masalam dugg àjjana ba xam danañu texe wala dugg safara dañuy dañuy dañuy texeyat yi loola dëgg la wuute am na ca wuute am na ca seenuk lislaam ak seenuk ñàkk ak lislaam wuute it am na ca waaye seenuk ñoŋ ak seenuk sange ñoo gën ñëpp ci wàll woowu amul kenn ku leen gën ci wàllu woowu kon traité way jur yonent bi di ko lëkkaleek ak misaaleek eh, ñaari njaalokat yu njaaloo ba doom judd ci seen diggante loolu yëpp yonent bi la yëpp alquran la yëpp sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëpp lislaam la kon kooko def loolu la ko war mooy mu yeesalaat duggaat ci lislaam ndax wax ji génne na ko ci lislaam kon loolu daal ci tënk dama nekk nii ci ci ci yoon euh, moo tax euh, munuma ci yaatal waaye incha allah bu ñu gënee dal dinañ ci def benn ak yaatal goo xam ne amaana dana amal ñëpp njariñ waaye daal ñu xam ni Moustapha Diakhaté moomu ku mën a jot ci moom nee leen ko Abdoul Ahad Sané na nga dellu tuubaat dugg ci lislaam ndax yonent bi du ñuy fowe ay ñaari way juróom duñu ñuy fowe eh, ay ñaari way juróom duñu ñuy fowe surtout di leen comparé ak ñaari njaalokat waaw eh, bu amaa nag li mu wax ni ay ñaari way juróom a gën ñaari way jur yonent bi loolu loola moom la moom ay waxam la moom la concerné ndax kenn xamut ay way juróom ñaari way juróom juraluñ ñu du dut ku mel ni moom kuy xas yonent bi moom Moustapha Diakhaté ay ñaari way juram lañu ñu defal l'islam mooy jural lislaam kuy xas yonent bi te mooy moom moomu jural l'islam kuy xas ay way juru yonent bi ta moom moom mooy moom Moustapha Diakhaté loolu de lañu xam ci jëfi ay ñaari way juram way laa kenn xamu leen ci réew mi eh, lu dut ay mbokk a seeni mbokk ak fa ñu dëkk amuñu lenn lu leen mën a nettalil ci jaloore wala lu leen mën a nettalil ci manoore wala luñ leen mën a nettalil ci ñoŋ loola yëpp kenn xamu ko ci ñoom xanaa moom moomu moo ko xam ci ñoom moom la conserné waaye li nga xam ni jullit ñëpp xam nañ ko ci ñaari wayjur yonent bi ci seenug ñoŋ ci seenug tedd ci seenug seeni manoore ak seeni jaloore loola lislaam kuy jullit xam nga ko waaw leena daal moom xamal naa ko ñaari wayjuru Moustapha Diakhaté mooy ni jural nañu jullit ñi kuy xas ñaari wayjur yonent bi jural nañu jullit ñi kuy xas yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay ñaari wayjuram ci gàttal loolu lañ daal lañ fi mën a wax sëñ maam Cheikh jërëjëf Mbacke. waaw lii Moustapha Diakhaté wax moom ala kulli xaal waxi reewande la eh, waxi alkande la waxi ak réer la wax la joo xam ni sax eh, boo ko analyser xool ko ci yenn anam yi dana yegg sax ci génn ci lislaam ci kufru la gën a jege ka ñàkk kufru ndax eh, munasaba bi mu ko waxee. ci xale bu jigéen boobu euh, coow li bari lool ci moom jamono yi euh, mu doon koo xam ne am na version yu ñu wax ni moom judduwul ci yoon comme judduwul ci yoon doomi njaalo la doomi njaalo nag ñaar ñoo njaalo mu juddu ca muy kañu ko askane ne mooy baayam te du baayam xaqiqatan donte moom euh, moom la moom ci ci mani yupp kooku la juddoo euh, ak ndeyam ji nga xam ni moom ndeyam la xaqiqatan kon ñaari njaalokat la mu génn ci seen diggante comparé nag ñaari way juram yooyu euh, ba koy ba leen di lëkkale ak way jur yonent bi loolu laa ashukku aw ma sikki ne kufrun sarix ak kéefër la goo xam ni mm, génne na nit ci lislaam ndax awalan mooy ni xadis yu bare bari ñëw nañu di wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci jub doom gu rafet dale ko ci sunu maam Adama euh, fépp fu mu jaar rek ba ni mu yeggee ci Amina ak Abdullahi yaa xam ci góor la wala ci jigéen la am po musuta dox ci diggante ñaar ñu yonent bi sallallahu alayhi wa jaare ci seeni ndigg dale ko ci aadama siisa ba wàcc ci yonent yàlla idris ba ci nuux ba ci ibrahim ba ci ismail ba ci adnaan ba ci ñaari way juram yooyu yu tedd yooyu euh, kon comparé ñooñu ak koo xam ne nee nañu du doomu yoon Eh, way ay ñaari way juram loola moom kufru la ndax eh, lor yonent bi la ci làmmeñ eh, te ña nga xam ni ne yuduuna rasulallahi la ca yàlla wax ñépp xam nañu ko dana génne nit ci lislaam irtidaat la murtat la wax ji ñaareel bi it lëkkale ñaari way juru kooka nga xam ni nee nañu judduwul ci yoon ak woy juru yonent bi sallallahu alayhi wa sallama e, loola comme ni ñu ko waxe léegi e, e, awma sikki sàkk ne irtidaat la murtat la anil islaam ndax yëpp yonent bi la fonto yonent bi la suufeel yonent bi la sallallahu alayhi wa ndax ak réer mooy li ko sabab ndax dëgg la am na as wuute su am ci way juri yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ci ni ñoom ñaar ndax